say bokk jullit lañu di la ñaaral nag sunu boroom mu bàyyi la fi may la wér ak kattan ba li nga ëmb ci sab xol bëgg koo defal diine ak bokk mu may la kattan koo ko defee te ñu ànd ko ak yow gannaaw loolu sant sunu borom bu baax moom mi nu may nu fekke lu mel nii te lii mooy li gën a rëy ci ndamal lislaam mooy tabaxal sunu boroom ak néeg ci kaw suuf sunu boroom moo bind lépp moo moom lépp waaye moo tànn jàkk yi ak jumaa yi ne ñooy ay néegam ci kaw suuf wa annal masajida lillaahi mu ne nag néeg yooyu falaa tad'uu mahallaahi ahada bu fa kenn jaamu ku dul yàlla buñ fa jaamu yàlla di ko boole ak leneen xam nañ ne mooy dong jàkk ak jumaa képp la sunu borom wax ne buñ koy defar nañ ko tabaxee nii fii buyootin asina allahu an turfaa waaye yuskara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil xuri wal asal sunu borom nee na bu ñuy defar néeg yooyu nañu leen yëkkati ñu jëm ci kaw mooy soroor yi te ñu di fa tudd turu sunu borom di ko fa sabbal suba ak ngoon ndigal loolu bi mu jógee rijaalun am na ñoo xam ne dégg nañ ko fas yéene ko jëfe ba laa tulhihim tijaratun wala bayhun an zikrillahi wa iqaami salaati wa itaay zakaat lu àdduna yëngu-yëngu du leen fab bi mukk ba tax bu ñu noddee duñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon dem julli ci jàkka ja wala ci jumaa ja ndax li ko waral mooy yaxaafoona yawman dañoo ragal bis boo xam ne bu agsee tata xal la bu fii xulóob wala saar sunu boroom nee na bu boobaa doomu aadama yëpp danañ ne xàjj di xool benn barab nee na xol yi di dem ba mel ni luy bëgg a génn ngir jàq ngir la ñu jàkkaar lool ndax isil xulóobu la dana xanaa jëri kaas bi ne maali saalimi min habimin wala safin yu taax loolu dina am solo boo tax ki nga xam ne moo génn ci alalam lu toll nii defal ko néeg bii ngir jëm yàlla ñoo ngi koy ñaanal suñu borom yàlla na ko nangu liggéey bi te fay ko ci la mu ca digge te la mu ca digge mooy baytan fil janna néeg ci aljana sunu borom nee na képp ku ma taxawalal ci kaw suuf ab néeg ak lu mu tuuti tuuti la ma lay fayee ëllëgee mooy néeg ci aljanna nee na doonte dafa tuuti sax bagg toll ni tàggum picc nee na loolu laa la cay fayee loolu lañ ciy dégg mooy xam nañ ne néeg jàkk wala jumaa mun la tuuti ba toll noonu waaye lam ci bëgg a wax mooy yow mi nga xam ne yéene nga ko te mënoo ko soo fekkat ñu di ko def nga yëkkati sa ñaari téeméeri képp def ko ca loolu lañu day fay bu ëllëgee kon nag loolu day daa nekk sasu képp ku dëkk dëkke ci pénc mi fu ñu nodde lépp loo jàppoon da nga ko war a bàyyi dem julli ji ci jàkk ja wala ci jumaa ja ndax suñu noddee yow mi toog ci kër gi yow mi nga xam ne ne dangaa daal di jóg jàpp dem julli ji ëpp léegi ki nga xam ne moo nga toog ca kër ga ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar loolu yoon saa saa moo ko wax boo ko defee juróom yoon nag day daal di bari te nag ëllëg sunu borom nee na du ñuy def lu dul jóor jëf yi di ko peese ku ëpp la jàll ku ëpp la doo jàll loolu nu bàyyi ci xel nee nag bu dee jullit jumaa moom yonent saa saa moo wax ne doon na bëgg cay jamonoom mu bàyyi kenn mu jiiteel ko mbooloo mi mu dem ca kër ya kum fa fekk nee na mu taal sa kër ci sa kaw ndax diisaayub loola ndax nee na loola cay xaar ëllëg lii moo ko gën a woyof te loolu nee na Sëriñ Tuubaa waxoon na ko fii ci njaareem kum daan gis ci sàppe si am ay julli yu bare bare gisu ko ba mu noppee mu dem këram ba mu taxawee ci buntu kër ba kooka séen ku daal di fëx wuti sun wuti sëriñ bi sëriñ bi nekk dafa woon naa na yow dañ lay tëral ak di la yëkkati waaye xalaatoo mukk ñu nootu ca jàkk ja te dara jot la te julli si woo loolu nañ ci bàyyi xel bu baax ci xam ne aw sas wu rëy la nañu xam na lu toll nii ñu def ci ay téeméeri téeméeri million kenn defu ko ngir rafetal pénc mi li tax ñu di ko def mooy julli juróom nañ ci bàyyi xel bu baax ñoo ngi sant mbokk yi fi teew yëpp tey ñaan sunu borom képp ku fi ñëw jéego yële fi indi ak yàlla delloo yàlla na ko bindalu yiw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu